aousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmanirahim barkeb sëriñ tubaa xaadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen ndokkeel ci at mu bees mi waaye di leen ziare bu baax a baax ci weer wu tedd wi ñu nekk muy weeru muharam mbokk yi ñoo ngi fii ci Touba ci daarul xuddoos ci bayti ci kër Serigne Touba cheikhul xadim dañuy daal di ñaanal bu baax a baax cheikh muntaxa mbàkke mi fi nekk Euh, ci bopp njabootuk sëriñ tubaa mu yàgg fi loolu te wér waaye noonu la ñuy ziare ak a ñaanal sëñ Ahmadou Moukhtar mi nga xam ne ni moo toog jataayub Cheikh Mouhamadul Moustapha ak mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp ak mboolem judditi ak taalibe yi mbokk yi xam ngeen ne jataay bu tedd bii ñu koy amale fii ci bayti buñ koy def am na xew-xew bu màgg buy jub si muy ñaar fukki fan ci weeru mu di bis bi nga xam ne nii ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam fii ci Touba waaye xam ngeen ne taarix dootu ko fàtte ndax ay dénkaane yu am solo yoo xam ne nii waxoon na ko Cheikh dul Moustapha mi ko jëkk a wutu ci njaboot gi mu taxaw ko ba def ca lépp loo xam ne nii sëriñ ba noonu la ko bëggee woon loolu tax na nag xam ngeen ne saa su bis biy jub si commission culturelle bi nga xam ne moo aju ci daayira wala mbooloo mi di diwaanul muridina lëkkale mboole munti kër yi Cheikh Modou Moustapha yi di ko laltaaye ak a waajale ay waxtaani dina yu am solo xam ngeen ne nag loolu moo tax ñu nekk nag ci suñu ñaareelu jataay am yéene nag fas yéene dalal ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Seck féete ñu ndijoor ak sëriñ Cheikh Fall Taïf ñu fas yéene waxtaane nag tomb bu am solo muy Cheikh Modou Moustapha ak njaboot gannaaw bi fi Cheikhul Khadim bàyyeekoo ba mu def lépp la nga xam ne ni Serigne bi santoon na ko ban taxawaay nag la amoon ci njaboot gi ngir bañ a jëkk ngir bañ a euh, guddal dañuy jëkkante ak waxtu wi jox suñu euh, jëwrin Serigne Bassirou sekk mu daal di nuyoo ñu door a àgg ci Serigne Cheikh kon bisimilah. ku ñu déglu ak dinu seetaan ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam mooy salaamaaleykum wa rahmatullah tàmbali nuyu bi ak siyaar bi ci borom ëtt bi Cheikh Ahmadul Mokhtar ak mboolem njabaru Cheikh Mahamadul Moustapha gépp di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaan yàlla itam jotaay yi suñu borom dajale ñu ci ak tawfiixu sëriñ bi kon sëriñ Abdoulahi ñu ngi taxaw lu doonu incha allah jërëjëf sëriñ Bassirou ci nuyoo yu am solo yi kon sëriñ Cheikh Fall Taïf ni ñu ko waxee léegi rek euh, ñu jox la kàddu gi nga daal di nuyoo ñu door a dugg nag ci tomb bi Euh, muy Cheikh Modou Moustapha ak taxawaay bi mu amoon ci njaboot gi ginnaaw Cheikhul Khadim kon bisimilah nuyoon. aouzu billahi min sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wa ala wa sahbihi wa xadimihi sawirin wa tamkiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax ni ñu ko waxee ci pàkk bu tedd ngir waajal bis bu mag bis boo xam ne nii bis bu am solo ci yoon wi muy bisu bi Seex Xaadim bi ñu bisee woon fii ci Touba ni ko sëñ Ablaye waxee nag ñu koy laytaayale ak ay waxtaan yoo xamante ne bii dana gën a mën a fàttaliwaat nit ñi Cheikh mu Moustapha waaye ak wajurum woowee waaye ñu gën caa mën a jëlee ay bind nag yoo xam ne bii danañ ko tari ngir mën a waajal suñu ëllëg kon xamaa loolu lenn la rek ci jataay bii bokk ci plateau yooyu incha allah sëñ Ablaye jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf ci nuyoo bu am solo boobu xam naa kon dañuy desandi ci yow rek laaj bi ñu jëkk a samp ñeel tomb bi nga xam ne ni tànn nañ ko tey buñ bëgg na xam tey njaboot ban wàccuwaay la am ci lislaam sukkandiku ci alxuraan ak addis loo ñuy leeral foofu. waaw jërëjëf sëñ euh, njaboot de dafa bokk ci li nga xam ni lislaam jox na ko dayo lool jox na ko wàccuwaay bu baax a baax a baax ci taxawee ko. waaye saytu ko ngir mu mën a jof ca buy jof sit maanaa jof ak ànd ak ni ko borom bëggee woon ndax suñu waxee njaboot mooy ay jaam lan doon ay jullit mu mel ne suñu waxee njaboot nag la ñuy wax rek mooy kaleen jaboote kaleen jaboote nag kon mel na ni am na responsabilité bu rëy boo xamante ni bii euh, su ko xamee ak bu ko xamut santeef na ko ko te loolu yaakaar na ni nga ko waxee alxuraan wax dëgg wax ci lu baree baree bari yoo xam ne bii day delloo nit ki ci mu bàyyi xol njaboot gi nga xam ni moom la jaboote loolu nag yaakaar na Cheikh Amadou Moustapha mii waxtaane sàmmonte woon ak moom lool ndax moom ñëpp xam ne ay jëfam ginnaaw dafa waxoon ni moom ak jub rek moo ko doy ak njub nag ku ko bëgg a tànq faaw da ngay dellu ci alxuraan waaye dangay dellu ci hadis loolu nag kon moom moo taxoon mu bawoon xel ak njaboot lool waaye maanaam nag teg ko ci njàngaleem lislaam maa ci muy ci njàngaleem diine loolee nag boo demee ci alxuraan da nga fekk ay ayat yu bari yoo xamante ne bii day bàyyiloo xel nit ñi rawatina jullit ñi importance gu ak njaboot am importance waaye taxawu guñ leen war a taxawu nga xam kon day mel ni njaboot dëgg-dëgg ngir mu mën a jof ca ëndaale lañ koy soxlaa day aaj ak taxaw loolee kon moo tax ay ayat yooyu baat auzu billahi min shaytaan rajim suurat suurat tahrim da ngay fekk suñu borom wax naan yaa ayyuha allazina amanu xu anfusakum wa ahlikum naara ah, wal hijaara alayha al malaikatu xilaasun sidaadun laa yasaoona allah maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun maanaam suñu borom di wax ni yéen nit ñi kat na ngeen fegal seen ndax su waxee ahli mooy seen ñooñ rek may mooy seen njaboot na nga leen fegal sawara ndax sawara soosi su su tàng la a doon doju tàng ca it ay malaaka yoo xam te ni bii maanaam ñu man a mbugale lañ ca ñoom nag lépp lu ñuy def rek suñ borom moo leen ko sant kon bu ngeen bëggee mucc ci sawara kon na ngeen ci maanaam na ngeen fexe ba seen njaboot ngeen moytulu leen ko ca teg leen ci yoon yoo xam te ni bii danañ ca mën a jaar ba mën caa mucc loolu nag mel na ni bu ñu ko waxee day joxañ yu baree bare baree bari bu fekkente ni da ngaa bëgg a muccal sa njaboot ci sawara euh, noonu ko laa yi waxee nag noonu nga ma deme ci xaddis yu baree bari yu koy firndeel donte laa sax man naa mën naa ni gën naa bari waaye da ngay fekkaat ci xaddis yoo xamante ni bii day firndeel loolu alxuraan alxuraan wax ndax xaddis bii nga xam ni moom na jëlee ci abu abu hurayra radiyallahu anhu muy wax ni maanaam dundal sa njaboot maanaa nga jël sa alal dundale ko sa njaboot wala nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël sa alal def ko ci fayal nit ki ay borom wala nga jël sa alal saraxe ko wala nga jël sa alal jox ko ay miskin nee na li muy am am am solo jël sa alal léegi financé ko ci sa njaboot nee na mu ëpp ab yool loolu kon la muy tegtale mooy importance gi nga xam ni ak njaboot am nga ko ndax yi ñu wax nii yëpp ñëpp xam ni yool bu mag mag moo ci nekk waaye li muy bari bari ay yool sa alal ji nga jël dundale ko sa njaboot teg leen ci aw yoon Seydina uh, Abu Hurayra nee na yonte bi alayhi salaam nee na la ci nit ki di amee ci ab yool doo ko amee ci yeneen yi mu wax nii yëpp waaye nga demaat benn xadis boo xam ne bii ibnu ibnu Mas'ud ba tey moo ko nettali xam naa ba tey du soreek bii ma wax nii foofa dafa wax ni nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël ko sa alal def ko ci leen ab xare ak yenn yu mel noonu nee na nga jël sa alal dundale ko sag njaboot ngir ñu mën a tege ci aw yoon ngir mën a jaamu yàlla nee na la ca jaam bay jëlee kenn du xam nan lay toll kon mu ëpp ab yoon kon yi mu wax nii yëpp kon loolu la muy tegtale mooy waaye nag dundal gi ngay dundal sag njaboot sa alal mooy ngir ñu mën a tege ci aw yoon ba mën a jaamu yàlla kon loola bokk na ci yi nga xam ni ay ay xadis la yoo xam ne bii yuñ mën a sukkandikoo la waaye soo déggee benn xadis bi nga xam ni ba tey ibnu Mas'ud moo ko nettali ngir ah, njaboot niñ ko war a responsabiliser nga xam ne day wax ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an raa'iyatihi léegi yooyu nag mu koy xajale di wax ni borom kër bu nekk maanaa mas'ul la an raa'iyatihi ci ak njabootam waaye di wax ni imam bu nekk mas'ul la waaye di wax ni soxna su nekk sax responsabilité bañ la jox ci sa kër maanaam responsabilité bi nga xam ne sa borom kër dala koo jox ci ak njabootam wala ci ay mbiram yooyu masolo nga ca te yii yëpp nag kenn ko ne da koy delloo incha allah loolu la kon day day day joxe ne suñu ablaay ak njaboot dañ ko war a taxaw bu baax a baax a baax euh, njaboot nag mel na ni suñ ko dee taxawoo dafa bari ay fànn yuñ koy taxawoo bi ci njëkk. taxaw ak njaboot dara jiiru ci yar ko maanaam yar sa njaboot bañ tegu ci aw yoon boobu kon dara du ko ci jiitu bokk na ca it mooy nga xamal ko ndax nit it ngir moo teg ci mu teg tànkam ci aw yoon day xam waaye bokk na ci it maanaam nga tabax ay jikko yu rafet ci moom jikko yooyu nag bi si njëkk mooy yow sa fànn bopp yow sa jëmmi bopp yaay defar sa bopp ba nga xam ne sa njaboot li muy gisee ci yow day doon jikko yu rafet day doon jëf yu rafet nga xam ne maam du mën a roy la ne lu dul loolu bokk na ci sax yaru njaboot mooy nga tànnal ko sax wajur bu baax maanaam yar maanaam am njaboot gu baax bokk na ca nga tànnal ko wajur bu baax ngir bu ci jógee moom it mën a am référence wala mën a am cëslaay lu mën a tegee ba ci aw yoon bokk na ci sax bëggee njaboot gu baax it di leen tàggat ak di toppatoo seenu wér-gi-yaram maanaam ndax nit fi ne mën naa yonjox yonjox ba tey lañ lañ bëgg ci moom dëgg-dëgg mën naa bañ am ca la koy waral mooy ak ñàkk wéram bokk na ci it maanaam nga yittewoo sa njaboot ci seen i maanaam seen déplacement ku ñuy àndal lu ñuy def ak lu ñuy wax loolu lépp nit ki da ko yittewoo ngir mën a mën a teg ak njabootam euh, ci aw yoon yooyu kon sëñ yenn la ci yi nga xam ni mas na koo jël cëslaay ci ku bëgg ubbi ak njaboot wa ilaa nga am njaboot njaboot gu baax mënoo cee ñàkk a taxawi nii ginnaaw bi nga xam ni alxuraan wax na ci ay aayaat yu baree bari kon jox na kon day mel ni taxaw njaboot farata la kon ñàkk taxaw sa njaboot day mel ni nit mën na caa jëlee bakkaar mën na caa jëlee sax euh, mën mën na caa jëlee mbëggalum suñu borom ndax ginnaaw yonent bi aleyhi salaam wax na ni ku am ñetti doom yu jigéen taxawu leen di leen toppatoo bañ am borom kër te yàlla dogal mosu ñoo mooy yàlla ba am borom kër suñ borom am lu ma ca warlul loolu kon na nga ciy déggee ni comme ak njaboot nag ca taxawoo leen ba ayib am ca kon ñu noonu nga ci amee bakkaar kon daal xam ci tënk mhm. loolu daal mese ko juddeen loolu nag Cheikh Amadou Soufane nag kon taxawaay bi mu tax a ki nga xam ne moom lu muy def lépp ci diine la ko teg ginnaaw bi ko tànka ci alxuraan ak sunna kon nag moo tax moo tax nag mu taxawee nii ni mu taxawee njaboot gi ba kenn ko ne mën a jaar ci yoonu sëñ Ablaye macha allah sëriñ Cheikh Fall Taïf noonu nga ko waxee rek xam naa bunt boobu la ñuy ubbi euh, door jox kàddu gi sëriñ euh, Basirou Seck waaye dañuy def benn résumé bu gàtt rek ci li nga xam ne nii traité nga ko muy euh, importance ak wàccuwaay bi nga xam ne nii njaboot am na ko ci lislaam nga sukkandiku ko ci alxuraanul karim ak addis kon mel na ne ab responsabilité la boo xam ne nii gàccu na ci ndoddum képp koo xam ne nii rek am nañu la suñu borom booleel xam naa ne bu ñu waxee njaboot dañ mën nañ ko partager en deux parties njaboot gi nga xam ne ni suñu borom dafa dogal mu meññe ci yow ak ñi nga xam ne nii yaa leen yilif ci njaboot loolu dinañ ci dëkk kon sëñ Basiru bu ñëwee ci thème ci ci tomb bi daal di euh, sukkandiku ci li nga xam ne moom la Serigne Cheikh Fall Taïf wax dañuy daal di ñëw ci Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou euh, Cheikh Modou Moustapha gannaaw Serigne bi taxawaay boobu nga xam ne nii am na ko ci njaboot gi nga xam ne nii moom la ko Serigne bi booleel muy njabootu boppam loo ñu mën a baaxe foofu. jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Cheikh ci tomb yu am solo yi nga xam ne andi nga ko mel ni nit nag bu fekkee ne daa am lu muy waajal la ci jiinu mooy fondement. Cheikh Mouhamadul Moustapha nag ñu wutal ko fondement bu dëgër ci aw askan waaye wutal ko fondement bu dëgër ci xam-xam tànnal ko néegub ngor tànnal ko néegub jom tànnal ko néegub fit yar ko boole ci kon kooku li nga xam ne moo war ci waajtaay Cheikhul Khadim waajaloon na ko sëñ bi am ay ponk yum tënk ci yoon wi yoo xam ni sopp da caa bokk tuuba li abdin muridin bi xidmatin aw bi xubbin aw nga xam ne cofeel dafa bokk ci lii ponk yoon bi cheikh Mouhamadul Moustapha amoon ko lool ci cheikhul Khadim xam nga Seydina Aboubacrin Saddiq li tax mu raw ci mboolem sahaaba yi yonent bi daf ne woon du julli gu bari du koor gi bari walakin xarra fi sadrihi lu ne ci xolam la lool nag mooy soofeel ga daana waxit ne man araada an may yansura maytan yamsi fawqa fawqa sira fal yansuri ila abi bakrin ku bëgg a xool aji dee juy dox ci kaw suuf na xool Aboubacrin Saddiq bëgg gi mu bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wàjjoon res ba nga xam ne buy wax ay seer dalay lay xeeñ ngir bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon cofeel googu Moustapha da ko Tuubaa mënatu waaye nag lépp mu lalu ci xam-xam ndax cofeel bu àndut ak xam-xam noonu bu xam da koy gën cofeel googu nag moo tax gannaaw sayxul xadiim bi nga xamee ne indi nañ ko Tuubaa ci nam ko bëggee woon digaloon ko Cheikh Moustapha ba noppi maam Thierno bi mu ñëwee def ne woon sëñ Tuubaa ab jullit la ab jullit bu fi ñëwee dañ koy miraas sëñ Modou Sall lam ca teg mooy kër lu ne mën naa taxaw ba mu des njël la njëlli nañ ma wax ñaata la ma fay ko daa dafay njëlli ah, li may njëkki nag ci njabootu boppam ak njabootu sëriñ bi fay njëlli ba mu mat calal ne liggéey baax na lool ñu tàmbali ne di dunde li woon ci kër gi ba mu jeexee nee na bàyyi woon na fukki fukki tundooti sàq mu jeex ma bojaat meneen andi ba mi laata ba dugub jooju laata njëx dugub ñoraat na daal di yiir magi bar sàq yi ba kenn du leen fekk fañ nekk te loolu leen war daan leen fa fekk loolu mu taxaw ci njabootu sëriñ gi sëriñ bi ñi ci mat a jàng ak ñi ci mat làddanti moo ko defal boppam mel ni mooy seen waajur cofeel gam amoon ci seen waajur mu séddale ko ci njabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekk kenn ku nekk la war ci yow ci taxawaay mu def ko ba mu sëkk loolu nag àddina dana ko laaj jamono yi nu toll ndax bare na luy am loo xam ni mag mu déggalul waajuram su bëgg a yilifi rakkam ñëpp xam nañ ni mënta nekk waaye ku déggal si waajur boo bëggee yil say rakk mu sotti kon loolu ñu bari war nañ ci jànge abubakarin sadiq la ko taxawoon mu yilif sahaaba yi daa déggaloon ñu tabi salaatu salaam bëgg ko bëggeel goo xam ne kenn dëbb ko ci cheikh mohamadul moustapha it noonu la meloon ci noonu la meloon ci cheikhul xadim ba tax li manoon ci jaboot gi mu def ko ci wàllu yar ñi nga xam ne moom la yaral boppam moom sëriñ Touba ak ñi sëñ Modou Sayer mënoo leen a xàmmee moo sëñ Blaat daan wax ne lu ma naqari lu leen naqari ci man na ngeen ko lu ngeen gërëm lu leen neex ci man ak lu leen naqari ci man na ngeen ko gërëme Cheikh Moustapha ndax lu Cheikh Moustapha ko ci def euh, bokk na ci ak matam bi nga xamante ni bii ku mel ne Cheikh Mouhamadul Mourtala bokkoon ci ñi gën a néew ci jamonoom bi mu jàngee ba ñëw amatub dëkk dëkk bu mu sànc boppam Touba Kayel mu moom la fa tuxale amee boppam yóbbu ko Madina jël tubaakaay jox ko Cheikh Mouhamadul Mourtala sëñ Abdoulahi sëñ Abdoulahi naka noonu bi nga xamante ni bii dem na ba war a amub dëkk dafa jël kàbbu gay ko ci doxal la ko Serigne Touba dénkoon juróom yooyu ne ko bu ma fi jógee nag ma yóbbu Touba te bu xaddam nag ma taxawal njaboot gi te ba ba buñ jooy baay bis bi ma fi ñëwee saa bu delsee nag ma woor ru yëpp ñu daja fi sama dëkk bi nag ma fi taxawal jumaa euh, na nga ma saytul sama dëkk ba mu nekk ci loxo ñi ma fi nekkal juróom yooyu Cheikh Moustapha réussir na yëpp gannaawam loolu nag ak xam-xam ak aku fit akum xel ak njàmbaar moo ko may waaye bu ëppoon mbaa mu yaafus mbaa mu ragal dana ci am loolu dana ci manqué kon loolu moo tax buñ ko woyee kamaal lu mënu lay doon njabootuk boppam gi yaral na leen yar boo xam ne bii ñim yar képp mën nañoo yor àddina boo njëkkee ci ñaari doomam yi nga xam ne ñooy ay taawam am nañ melokaan woo xam ne njabootu sëñ Tuubaa gépp bàyyi woon nañ leen xel ngir seen melokaan Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke ak Sëriñ Mbakke Madina moo leen tërbiyaal boppam yaral leen boppam ba noppi nag xamal leen lan moo di murit ndax nit mën naa jàng ba bari xam-xam waaye dana am lu mu umpale ci murit gi waaye loolu lépp da koo def ci ñoom ba taxoon ñoom it ñu mën a yor àddina Cheikh Moustapha bokk na ci xam-xam bi nga xam ne moom lay def ci nit ci kattanam ba nga mën a yor àddina mooy da koy tàmmal teraanga yar ko ci teraanga ba nga xamante ni bi fu mën a nekkati nit ñi rek a fay ne ndax daana wax ne boole nit ñëpp soleen ci mel ni mbedd nay mbeddum teraanga Cheikh Moustapha bokk na ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci gannaaw njaboot gi képp koo xam ne kii war ngaa lu la sa waajur waroon defal cib taxawaay def na ko ba mu mat sëkk ndax daana wax ne kenn ku nekk ka ngay dëkkaale maa koy seetal saa bopp waaye duma la bàyyi nga wëral ko sa bopp ndax keneen koo fi indi day yor doole sëñ Tuubaa ak xelu waajur mu jigéen moo tax ñëpp moo leen taxawu ci fi leen sëñ Tuubaa waroon a féete kurut Cheikh Mouhamad Fadal doo Cheikh Mouhamadul Amin doo sëriñ Abdou borom dër bi doo sëriñ Basiru la la war ceew lépp Cheikh Moustapha moo ko def tax wax nañ ne soxna Astu Gaawaan toog diir bu yàgg defe ne Serigne Touba sëñ Modou Sa kenn la ci taalibe yi Serigne yi ndax loolu la leen daan wax sëñ saaliwu ba ko jox këram gi ci mbuur daf na ko dogal ma ne ñoo bokk de dogal ma ne taalibu Serigne Touba la mu nangul ko loola waxoon na ko ku mel ne Cheikh Mamadou loolu lépp daa leen ñemeloo boppam ndax kilifa day ñemeloo boppam ak njabootam bañ mañ koo di soxla loolu Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko ci moom yiir leen nag ba jenn lor di jóge ca gannaaw di leen fekk fañ nekk yiir leen ba jenn lor mënta jóge feneen fekk leen fa nekk loolu bokk na ci li kilifa mënal moroom ja li kilifa mënal ak njabootam Cheikh Mouhamadul Moustapha defoon na ko ci gannaaw Cheikhul Khadim ci njaboot gi naka noonu itam kenn ku nekk moo saytu sam njàng sama waajur moo ma wax ne ma sëñ Tuubaa moo sëñ Modou Sa moo jàngal sëñ Mortala mi bari nee na mas nay séddale reer bi ca Taïf ñu ne ko Mbàkke teeñ koy jox nit mu di ko séddaleel te nga nekk ci yeneen yitte mu ne damaa bañ jox ko warta am ak xañ ko war a am sama baay moom ma wax ne ma moom ma téyel alquran ma tari maag sëñ Ibra ab sëtu nee na ma lii ci moom laa ko gisee téyel ñi mokkal di jàngal nit ñi xam-xam di jiite ca jàkka ja di séddale reer bi sa bopp nee na kenn nettalu ma moo ma ko moo ma ko defal mm-hmm. te nee na ma itam lu ñu la mën a wax ci moom man gi alquran moo ndax maag sëñ Ibra Absatu la boole di téyalandoo te bi sëñ Ibra Absatu gaagee ñetti yoon daf na ko da ngay beq jiwaat nee sama baay nee lii moom taqat sëñ Ibra Absatu kon kooku nit la woon koo xam ne kii bu ñu la wonee jëmm ji da ngay def ne dund ñaar fukki at cinquante neuf faala mhm. jooju nga xam ne moom la joxoon ndénkaani sëñ Tuubaa ak njaboot gi mhm. taxoon na 1943 bi mu wéradee mhm. bi sëñ Basiiru tàggu ko ne ko damaa bëgg andi ñu saytu yaram bi docteur yi ba ñëwee lañ koy wax mooy kii daa nelawul amut benn maladie bu ne ci yaram bi Euh, bi ñu demee ba bind ordonnance ba jox sëñ Basiiru mu ne ko sa gars yi lu ñu wax mu ko nee nañ ami woo jàngoro de waaye dangaa néew mu waa wax nañ dëgg de ku baax ki bi fi jógee léegi néew ma jàng bat guddi te loolu lépp yitte yim amoon diggam ak boroomam ak yitte ji nga xam ne amoon na ko waroon na ko ci njaboot gi ak ndénkaal sëñ Tuubaa li ñu ko dénkoon tax na sëñu tëdd dina la kon sëñ Ablaye ñu ngi taxaw foofu ba ca kanam incha allah jërëjëf sëriñ Basiiru Seck ci euh, tomb bu am solo boobu mu mel ni mën nañ ci dégg Cheikh Modou Moustapha li nga xam ne ni euh, def na ko ci taxaw njabootuk Serigne Touba ak njabootuk boppam ginnaaw bi Serigne bi ñibbi aljana mën nañu wax ne lépp lu ñittewoo defal na leen ko moo xam muy jàng moo xam muy euh, dëkkal leen moo xam muy taxaw leen ci anam yépp ba nga xam ne nii keneen képp kum ci doon feneen foo dem rek jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha ngay daal di gis loolu yaakaar naa ne euh, indi nga ko ci sini biir biiri kàddu waaye niñ ko waxee léegi rek xam nga bu ñu waxee taxawu njaboot wax nga léegi njabootuk bopp ak njabootuk Serigne Touba waaye nag murit yi nga xam ne ni ñoo toppoon ci Serigne Touba moo xam muy seex yi moo xam ñeneen ñoom ñëpp mën nañ ne am na taxawaay boo xam ne ni itam Cheikh Modou Moustapha taxawoon na kon sëñ Cheikh Fall ginnaaw euh, taxawaay bu solo boobu nga xam ne ni gis nañu ne Cheikh Modou Moustapha amoon na ko ci njabootam boppam ak njabootuk Serigne Touba. taalibe yi nga xam ne itam ñoom mën nañ leen a boole ci njabootuk Serigne Touba ban taxawaay. la Cheikh Modou Moustapha amoon ci ñoom ba tey jii ñu gis réalisation yu mag yoo xam ne ni xëy na taxawaay boobu moo ko waral mën nañ cee tudd jumaa ji ak yeneen yu ñu demee. waaw jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Cheikh Modou Bassir waa xam nga foofu moom dafa mel ni euh, loolu Cheikh Mamadou Fadel waxoon rek waaw Cheikh Mamadou dafa waxoon ni sos moom jeex na nee lépp lu mas a lu mat a sos magam ju baax na magam ju baax ji sos na ko ñoom dañuy sof rek. ndax njabootu li ko waxee mooy xam nga njaboot yi lislaam dafa yaatu lool ndax man nga xam ne képp koo xam ne bi ak kilifteefam ci yow la nekk kook sa njaboot sa njaboot la bokk. Euh, Cheikh Moustapha nag dafa mel ni bi fi Cheikh Xadim jógee dafa defaat beneen taxawaay boo xam te bii yoon yi mënu ko woon a ñàkk maa ci njaboot gi ca loolu ba fi ñu toll nii mais sa wax ne loolu mooy dox ndax Cheikh Moustapha ni mu organisé waatee yoon wi maanaam boo ko tàmbalee ci. comme ni sëñ Bass ci ak njabootam boo ko boo ko génnee waaye tàmbalee ko ci seex si nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi Cheikh Modou dafa taxawaat taxawin boo xam ne ni bii tey kenn ku ci nekk fa sa waajur nekkoon fexe ne ba samp la waaye di la dimbale ba la sa waajur doon tekki ci seexul xadim di la mu dimbale yow ba nga mën koo tekki ci yoon wi waaye nag la ko jiitu nag mooy ak tarbiya kon dafa mel ni Cheikh Moustapha ak sax dafa mel ni moom maanaam façon tarbiya bi mu doon maanaam bi muy bu bees la bu buñ buy door a génn ca manax ba fi mu toll ñuy wax ak yéen modèle boobu ma doon tarbiya képp kuñ ci tarbiya rek da nga ràññi ko muy ci moom ba ci taawam bi ba ci daara yim sosoon seen comportement seenu doxeen nga xam ne da ngay silvisé ku la gis xam ne yi muy ab donc ab nga waaye da ngay silvisé ba pare nag doon ku dégg diine doon ko doon ko dégg mu rek gi maanaam loolu ba fi mu toll nii da cee ràññi ko maanaam moom ni mu ko ni mu ko organisé woon ku ku ci laal ci moom rek. da nga ciy wuuteeg ku ci ku ci lalu ci moom kon loola mooy ak taxaw ñi nga xam ne maanaam ay seex lañ comme ni ma ko waxee woon mu taxaw leen ba te ban ngaa wax ni li nga xam ne moom lañ xam ci yoon yi muy gépp kilifa gu fi jóge ñu fexe ba sa sab taaw taxaw taxaw la maanaam wóotu la loolu ci organisation Cheikh Amadou Moustapha la ca it mbokk yi loolu bu ko bu fekkoon taxawoo koon noona luy naqari lijjanti lay doon ndax nit nag ngir mu topp rakkam loolu moom daa mel ni Cheikh Xadim lañ ko mas a ak Mamor Diarra waaye day mel ni yombatut waaye taxaw gam gam ca taxaw moo waral tey léegi ñëpp a xam fi ne su ko fi kilifa kilifa jógee rek kan moo fay toog waaye moo def ca beneen taxawaay nag kilifa ga nga xam ne tey jii nii moo war a toog moo tax néew na fi tey nga gis ci yoonu murit koo xam ab taawam ma nga ci këram déedéet dana ko génne ngir ñu formé ji ko formation yoo ne bi fi tey jii nii yàlla yax mais saa ba fu kilifa génnee dana ma ñëw tax taxawaayu kilifa ga ci xam-xam waaye ci taalibe waaye ci ak mat kon loola taxawaay la bu am solo boo xam ne bi Cheikh Moustapha def na ko ci ñi nga xam ne ñooy ay taalibe waaye ci ñi nga xam ni maanaam dañ ko maanaam mas na ko tuddee ak njaboot waaye muy ñuñ ko jox ñooñu Cheikh Moustapha dajaa taxaw taxawaay boo xam ne bi fi ne képp koñ ko jox ba nga jógee fi boo demee fa nga jógee woon yow ab ràññikuwaay ngay doon ca loolu mën nga koo tàmbale ci ay turandoom Cheikh Moustapha képp kuñ ko tuddee jox jox la ko yàlla defal ko tawfeex ba ñu ci ëpp wóotu nañ seen wajur ca kenn ku ne ba nga demee ab làmp nga fa nga nekk ca loolu fa nga ko jëlee mooy ci Cheikh Amadou Moustapha noonu ko suñu waxee Cheikh Amadou Moustapha Fallou nettali na ko nee na Cheikh ci la gisee kilifa goo xam ne bii tey mooy jàngale mooy jiite mooy séddale waaw nga xam ne lépp moom da koy def nga xam ne képp comme tàggat boo fi jógee loolu lépp da koy man maa ngi jëlee ci sëñ Moustapha Beto yal na ko yàlla dolli leer moom yàlla dogal na ma ziyaare joon ko benn bis mu dem xamal bi yàlla dogalee mu bind ab kaamil ba di ko andil Cheikh Modou Moustapha wax na ma kero ñaari doomi suñu Moustapha yu mu fa fekk euh, sëñ Aliou la wax ak sëñ Mahamadan Xarilo waaye ne bi mu nuyoo ba noppi da leen da leen a woo ni leen kaay leen nuyoog seen doomi baay jii daal leen nag kii de gis ngeen ni mu andi daal leen lu mel nii laa bëgg bala ma leen a gisati ngeen ngeen def ko loolu Cheikh Modou Moustapha bi to moo ma ko kon njaboot gi nga xam ne képp kuñ ko jox def na ci yow wàccuwaay woo xam te ne bii moom ni mu taxawee ci kanamu njaboot Cheikh Xadim gi te mat leen sëkk yow boo fa demee boo demee fa fa nga jóge woon noonee ngay mel. Euh, ba ci ni ko suñu Cheikh waxee njaboot gi nga xam ne ñoo njaboot Cheikh Xadim gi xam nga taxawu njaboot sëñ Ablaye dafa am ay fànn yu ci nekk xam nit ki dana bëgg dana taxawu njabootam bëgg leen ba amal sa bopp ak njabootam bëggee def du leen ci génne. ngir ak bëgg Cheikh Mansour Fall nag dafa matoon ba nga xam ni képp ko aju si njaboot gi saa boo gisee bëgg ngaa def loo ne bi jàpp na nii gënut dana la si jëlee kilifa gu baax nett leen ni Cheikh jàng na cam cam cam bokk ak moom wajur bi mu jàngee ba noppi daa bëggoon a ni day jàngi faneen mais bi mu tàggoo Cheikh Mansour Fall da koo jox ndigal ni ko na toog bi mu toogee yàlla dogal na ca toogaay boobee ca la ko Cheikh Khadim njëkk a feeñoo ca ko ca la njëkk a feeñoo sañ ci ab dëkk am ko tuddee Cheikh Moussa xam ne ko turoo dafa diis soppi ko tudd ko tudd ko waneen tur loolu kon bàyyi xel ci njaboot ak sàmm ko moo ko waral ndax ñaar yooyu yëpp benn bu ci ne bëgg njaboot mën naa tax maanaam mu bàyyi mu jàll ba mu ko ne day génne dem jàngi ci biti mën na ko demal wala ba mu tudd sànci ab dëkk tudd aw tur mu bàyyi ko ca mais kon dafa am mat sëkk wax ne bi lim lay bëgg bëgg bëgg ak li muy bëgg bëgg loolu la neex loo jàpp ne lii moo gën ca lay jaare ni ko Cheikh Ahmad Sëñ Basir waxee loolu soxna may nettali na ko ngir taxaw gi mu doon taxaw njaboot yi nee na ñoom jàppoon nañ ñi Cheikh Modou Moustapha seen talibe bàyyi la loolu nag yemalewu ko ci njaboot gi mu bokk ak Cheikhul Khadim waaye ay rakam ay rakam maanaam li bëgg wax mooy doomi Cheikh yi laa bëgg a wax ak talibe yi kon ñëpp la yemale woon ci fas yéene a jofal ca kenn ku ci nekk bi bu leen di jëfal ci digg ci Cheikhul Khadim maanaam Cheikhul Khadim bëggee woon nu mel ni danañu mel ca noonu mooy ni li suñu borom bëgg mel ni ci ab jullit mel ni ab murid saalix mel ni kon taxawaay wala Cheikh Moussa Faye amoon ci njabaru Sëriñ Ablaay macha allah jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf kon mu mel ni euh, foofu leer na nañ kon sëñ Basiru dañuy dikkaat rek ba tey ci tomb bi waaye xam nga bu ñuy waxtaanee tomb bu toll nii ak fi jamono toll du ñàkk nag ñu jël ci njàngale mu mel noonu ñu jël ci euh, jëf ju mel noonu ñu mel ni ñu jël ci jëmm ju mel noonu muy Cheikh Modou Moustapha taxawaay bu am solo boobu ñu daal di koy déggatal waa jamono ñu daal di koy indiwaatal waa jamono ndax wax ngeen ko léegi kilifa yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa euh, wala kilifteef yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa bàyyee ko ci yow buñ ko jëlee ci euh, mbirum àdduna ki nga xam ne ni moo jiite réew mi ci benn côté ñun ñëpp ak njabootam la ay ministre am ñun ñëpp ak njabootam lan nga dem ci beneen côté bi kon yaakaar naa ne jot na sëkk nag ñu daal di ñëw ci tomb bu am solo bi royee ci Cheikh modu Moustapha ngir nag indiwaatal ko askan wi ñu xam lan mooy responsabilité diggante ki jiite walla ki yar ak ki nga xam ne ni euh, mooy yaree. jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Cheikh ci jotal gu am solo bi <clears throat> mu mel ni Cheikh Mouhamadul Moustapha dafa jàppoon ne taalibe bi sëñ Tuubaa yëpp moo leen war a yor seen dund moom la war seenam paj moom la war seen lépp moom la war. Euh, ba tax na sax ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu mu daa laaj daa wax ñi ñi dëkk Tuubaa moom. daanaka da daana leen xaw a wàcc léeg-léeg waaye ci mën a def nuuru naa laa nuuru na loolu yi nag ndigal Sëñ Tuubaa ci moom ndax ñu ma wóolu seeni wax ñu nettali ma ko nga xam ne sama waajur moom a nettali bi mu sancee Touba vingt 1922 dafaa ñëw bëgg a dugg xaloo maanaam tàggu ji sëriñ bi ci njaarim ne ko damaa na tukki ci biir kër gi sëñ bi ne tek mu baamuwaat ko sëñ bi ne teg ba ci yoonu ñetteel mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbàkke mu ne ko jaxasoo ak bindeef yi di xam seeni soxla da ci def la nga mën moo gën di wér di jaamu sa muy benn ñaareel bi itam bi mu fi nekk wutu sëriñ bi ñëpp xamoon ne ay yére yombut dañ daan def ku fi mas a jóge mu jël am mbubbam jox la ñu sànge la ko am kuñ mas a denc ba noppi ci ñami waxal mooy yoon salaaw day daanaka lu di ma sol day daanaka li ko tee des ci sama yëre bëriwut waaye taal diir bu néew am taalibe bu dëkk Gàmbi andil ñaari piis mbasin jox am piisu mbasin jox ko mu laaj ko ne ko ndax jaar na fa mu war a jaar mu ne ko déedéet mu ko demal jaar ko muy douane mu delluwaat ba foofa bi mu waxee euh, kii nekk ci douane boobu tubaab bi fi nekk fa mu jógee mu laaj ko lu ko tax ñëw mu wax ko ko mu yéemu ci kaddu gi ak jëfik ndigal gi ak ko gi mu bëgg njub ak nit ñi ni ñu bëgg àlal tam defi lii mu yëkkatiwaat beneen piis ne ko may naa ko douane bi ak addi mu ñëw ba mu ñëw mu ne ko dénk naa li ak njub ak tegu ci aw yoon kon loolu lépp am njàngale lay doon moo xam ni danañ ci war a mën a mën a jàppe ne Cheikh Mouhamadul Moustapha ku mënoon a dimbale nit ñi la ku leen bàyyi woon xel la yëmale woon ku yëmale woon taalibe yi nag njabootu Sëñ Tuubaa mooy bàyyi boppam yi yi ko fi Sëñ Tuubaa bàyyeeloon ak lenn ci magi taalibe yi ko mas a jógee Kajoor di ñëw da wax ndax jaar nga am Cerno boo ne ko déedéet déedéet mu boole la nga ko jox ak lam am ne la dama yotal ma ko bàyyi Cerno boo jógee côté bii ne la ndax jaar nga ci maam Cheikh boo ne ko déedéet mu boole lam yor jox la ko ne ne la demal ku nekk dalaa teg fi barab nekk ne bu ko fa kenn weesu di ma fa fekk si sëñ blaaj bi mu ko yóbboo kàbbu gay daf leen sëñ Tuubaa ngeen ma doon topp indi naa leen ko kon mi ngi nii euh, bu dee ci wàllu taalibe yi nag maa ngi koy nettali sànq Baye Mor sekk moo sama baay ñoo bokk benn baay ay na mbay mi xaw a doy kiimaan lool bi mu defee li mu def lépp ña këyitu ñaar fukki dërëm la dese mu xamul nu mu ko yóbboo àddee parce que booba mag ñi buñ masaa bay ba noppi lañ rek la ñu mën a am àddee mu xeeb ñaar fukki yi na bi mu dee mënu koo ñàkk jox sëñ nu Saam mu yëgg nuyu ko ne ko ah Mbàkke day ñu ngi jégalu ndax addi jëleen daa tuuti lool mu ne ko tuub ko moor ne ko fay nga sa ko mu ne ko waaw mu ne ko fay nga lemp mu ne ko waaw mu ne ko wutal nga baa kër gi lu sol mu ne ko waaw mu ne ko lu ñu am na fa mu ne waaw mu ne ko xanaa xamul loolu boo ko defutoon man la war loolu boo ko defutoon man la war boo fayutoon sa ko maay fay boo fayutoon lemp maa koy fay kon daa jàppoon ne moom moo war a njaboot gi wax nañ ne am nay jamono amoon na fi oto beneen oto bu ko joxoon boo xam ni ci jamono yi 39 45 bi guerre bi déclaré dund bi manqué maanaam réew mi nekk ci crise mondiale benn colon ci tubaab yi nekkoon njaareem am ku mu wóolu mu ñëw mu ne ko fekkee mën nga fukki fan juróom yu ne nga jox ma oto sumul ma jox la oto bii ba nawet wàcc da indi oto sumul ma joxe fukki fan ak juróom yu ne nga indi benn tubaab bi jubóog moom ci loolu. ki ma ko nettalee nee na sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëñ Bachirou bañ ko yëgee ñu jàpp ne lim mu joxe oto bi néew na biñ ñëwee di ci wax ak moom ne sëñ bi dañ ne bëri dugg ci biir ab diir bëkk néeg ba fekk ko fa na ko day sëriñ Cheikh ak sëñ Bachirou di ñu ngi toog ba tey ñoom mu daal di ubbiwaat bunt bi nee man kat Bachirou damay bëgg a jaarale xanaa xamu leen ni dimbale benn taalibi sëriñ Touba moo ma gën oto bi dimbale xettali benn taalibi sëriñ Touba moo ma gënal oto bi boo seetee ba ci ñaan yi mi ñaan te kadar te kadarati dunia wa daaxat alal maanaam ñaan yi mu ñaan rek jullit yëpp lay ñaanalaale macha allah daana wax ne yàlla bu ma yàlla jëpp ci ñaan yi may ñaanal jullit yi daane boole wax ne boole nit ñëpp sol ci mel ni mbedd nay mbeddam teraanga foofu la soloon taalib yëpp moo tax kenn mënu ko woon a muñ macha allah kon sëñ Ablaye ñu ak waxtu wi ndax euh, ñu ngi ñuy signalé kon sëñ Cheikh xam naa fi ñuy tëje rek yow itam ci euh, diirub benn ñaari simili rek euh, wax nañ ko sëñ Bassirou léegi tomb bi nga xam ne ni moom lañ doon traité lan la ci waa jamono mën a yóbbaloo rawatina njiit ñi nga xam ne ni dañuy yar seenu njaboot. waaw jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Cheikh Amadou Bassir waaw dafa mel ni ni yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nekkoon njiit jàpp naa ne képp ku njiital jamono war nga caa war bind. ndax yonent bi alayhi salaatu salaam mën ngaa wax ne mooy kiy jiite waaye mooy atte waaye mboolem li ñuy soxla ci. Euh, Euh, mbooloo mi di soxla moo koy def takk sa ak yeneen ci aju ma jàpp nag lépp njiit fi ne loom si da ngaa doon njiitul réew wala njiit loo mën a doon yow it sa taxawaay mooy nii Cheikh Moustapha doon jiitee ak nag boo leen jiitee da fexe ba la nga yor nga fas ko yéene bokk ak ñoom waaye ñoom la ñoom lañ yor nga bàyyee leen ko sa der bii ni Cheikh Moustapha def nga xam ne dafa waxoon ne der bi moom daanaka da koo saraxe loolu njiitit nag taxawaay boobu la la war a am ci ci ñi may jiite lépp loo xam ne bii ñi ngay jiite ñoo la ko gën a bëgg nga bàyyee leen ko nga bàyyee leen ko kon damay wax ni képp kuy njiit njiit nag sa kër lay tàmbalee nga doon sa njiitul kër sa njiitul gox ba ci njiitam réew war ngaa jël ay bind seex Cheikh Modou sofaa nam doon jiitee ndax gëm jàpp naa ne képp ku ku taxaw ci taxawaay wala sax nga xaw koo jege ci nam doon jiitee ñi nga ñi ñi nga jiital ñëpp lay gërëm ñëpp lay sant ci dañuy am jàmm njiit ci bàyyeeg nit ñi li ñu yor ca moom li mu yor mu bokkook ñoom waaye bàyyil ab deram lu ko neex lu neex waaye na ko wax ca moom du wax kenn lu ñaaw kon loolu dañ ko war a dañ ko maanaam ñun jamono mhm. lu ñu war a jënd jëndeel Cheikh Modou Moustapha mhm. ndax sa bàyyi laaj na ko lool xam naa kaddu yi ngay tëjaale mhm. waaw xanaa di santaat bu baax rek e, di gërëm ci jataay bi e, ci ni nga xam ne noonu ko taxawoo waaye di wax daal Cheikh Modou ab royukaay la ci anam yëpp boo na bi jamono soxla na ko kon jàpp nañu modèle la ci anam boo ko mën a jël ngir ñu delluwaat ci moom ngir suñ suñ dund gi ñu nekk mën a doon dund gu na tax waaye ñu mën a teg suñ tànk ci jaamu yàlla teg ko ci ndigalu sëñ bi ba maanaam boo lëgee ñu mën a mucc ca ak njabootit ñu mën koo jof ca bu ñu koy jofal la la ci suñu bëgg ñu mën ko defaale kon noo ngi sant ñëpp di gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam kon sëñ Basiru yow it dañ lay jox rek nga daal di yëkkati sa kaddu yi ngay tàggoo mm-hmm. jërëjëf kaddu yi day xam naa mooy ni ko sëñ Cheikh waxee rek njiit ak kilifa bala nga koo doon nit ki mënu koo doon te ragal yàlla amut ci moom nit ki mënu koo doon te njub amut ci moom nit ki mënu koo doon te yërmande ju bari amut ci moom waaye nit ki mënu koo doon te yar amut ci moom nit ki mënu koo doon te am xel nekkul ci moom waaye nit ki mënu koo doon te war ma nekkul ci moom mu mel ni yooyu yëpp nag Cheikh Mouhamadul Moustapha boole woon na ko ci jikkoom ji te makaarimul axlaax ci la nit mën a euh, téye àddina ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf ne innama buxistu li utammima makaarimul axlaax li tax yàlla yónni ma mooy ma mottali tedd ngay jikko yi loolu nag mooy jéggal ku la tooñ jox ku lay xañ jokk ku lay dog loolu lépp nag mi ngi woon ci Cheikh Mahamadou Moustapha moo tax bi maam Thierno nelawee sëñ Cheikh Awa Balla bi mu ñëwee bi mu ko bi mu diisoog moom ci wàllu kilifteef daf na boo demee say doomi baay ak sey rak lu ñu yor nang leen ko bàyyee loo yor nang ko bokk ak ñoom nanga nga nangu ñuy ànc sa na nga ñuy ànc sa doole di reer ci sa der mm-hmm. nañu añ ci sa doole di reer ci sa dar loolu boo ko defee yilif ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Bassirou Seck jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf ci tomb bu am solo bi nga xam ne nii moom lañ doon waxtaane tey mu jëm ci Cheikh Mouhamadul mustafa ak taxawaay bu am solo bi mu amoon ci njaboot gi ak mbooleem jullit yi gannaaw euh, nekkook Serigne tubaa Cheikhul Khadim fii ci Daara Dunia waaye ñu dégg ci ay tomb yu am solo yoo xam ne nii itam wala yeneen tomb yoo xam ne itam yaatu na ci lool ci euh, fi nga xam ne foofu la jamono toll kon jot na sëkk nag ñu daal di delluwaat ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko rawatina nag ci ñi nga xam ne nii ñoom la doon yar. kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jataay bi nag doon ñaareelu jataay bi ñu ko waxeen ci ak njaal benn ngir waajal bisub euh, ñaar fukki fan ci weeru muharam di bis bi nga xam ne nii ci la cheikhul xadim tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam ci taxaway cheikh Modou Moustapha mu def ca lépp ba tax saa su bis bi dikkatee nag ñi nga xam ne dañooy aju ci diwaanu Muddina lëkkale mboole munti këri Serigne tubaay yi commission culturel bi di ko waajale ci anam bi kon nag li benn jataay la di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xarala gi moo xam muy caméraman yi régisseurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañ koy yaatalaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ñu ngi koy def ba fexe fépp fu mbokkum taalibe nekk rek nga mën koo seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje beneen ab jataay ci waajtaayu muharam 1444 2022 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.